monsieur Dieng Alla Dieng ñu ngi lay nuyu di la dalal maa voilà ngay directeur euh, exécutif euh, bu Unacois Yessal opérateur économique euh, tey ñu waxtaanee li xew ci sous région bi gis nañ ne mbir maa ngay gën di jéggi dayoo yéen ngeen nekk ci yoon wi di andi di yóbbu voilà donc muy importateur exportateur li jëm ci commerce bi tey nan ngeen dundee situation bi. situation bu metti la mu concerné ñaari réew. frontière dox ci diggante bi te ñaar réew yëpp ku ci nekk di soxla sa morom waaye itam euh, ginnaaw Bamako ginnaaw Mali donc Burkina Niger ñooñu ñu bëri sax seen marchandise fi la daan jaaree ndax ñoom amuñu euh, port jàkkaarloo wuñu ak océan boo xam ne ni bateau yi dinañ mën di accosté. Mm-hmm. kon déjà port Dakar trafic bi fi am yëpp lu ci am important lu jégg dayo en tout cas lu am important trop Mali mi ngi koy jëflante ak Sénégal. xam naa ci dara parce que maa ngi ko seet. sans que dañu bëri ay membres yoo xam ne nii dañuy jëflante diggante euh, Sénégal ak Mali ak ci sous région bi. Mhm. mën naa wax sax ne am na ci ay jigéen ñoo xam ne nii dañuy dem ci foire yi nekk ci gox yi yëpp di fa dem ñëw comme ñooñu ni ñëw aussi di jënd si marché di dem. Mhm. ma fàttali sax ne pandémie bi mu amee amoon nañu lu toll fanweeri membre yoo xam ne ci benn hôtel lañu mujjoon bloqué euh, ndax mbir mi daf leen fekk Côte d'Ivoire loola moom ci feebar bi bi mu doon tàmbali nga xam ne euh, affaire euh, réew ma la concerne ak CEDEAO mm-hmm. euh, tëj gi ñu ko tëj ay sanction la waaye métti na métti na nag mooy ñaar réew yi ko dina ko yëg économie bi Sénégal dina ko yëg mais surtout ñi jënd ko jaay te nekk ci frontière yi nga xam ne dama naan jigéen nag ay góor lañ yoo xam ne nii ñu ngi liggéey ci secteur économie informelle mm-hmm. te économie informelle économie bu pour dund la d' abord balaa muy ne économie buy développé. Mm-hmm. ndax économie informelle dafa yaatu am na ñu ci am xaalis am na ci am na ci néew doole. Mm-hmm. ñu bëri ñu ngi woon ci frontière bi di ay Guinéen di ay sénégalais ak yeneen nationalité sax yoo xam ne nii ñu ngi laan di jëflante dem ak dikk nga xam ne trafic bi. Euh, moo moo daan wane loolu te activité commerciale moom trafic ñu ànd. Mm-hmm. tey bu doon am ci xayma euh, ci wàllum koppar ñaata la leen yàkkal yéen ñi importateur yi nga xam non seulement dafa bari mais kenn mënu ko xayma te itam dafa am structure yu ko mën a xayma xaj na ñu koy wax ANSD. muy mm-hmm. agence nationale de la statistique et la démographie. Mm-hmm. ñooñu xaj na mën nañu génne ay chiffres yu pointus. Mm-hmm. waaye fii ma lay wax nii ba bërki démb ci àllarba ji eh, natt nañ lu tolloog juróom-benn téeméer ak juróom fukk. ci ay camion yoo xam ne ñi côté bi ak côté ba lañ gaare ñi nekk fi mënuñu dem ñi nekk fële mënuñu ñëw. ndax dañu appliquer sanction yi sanction yi nag xaj na diis na. Euh, xaj na métti na dana affecté économie waaye aussi bu fekkoon doon affecté économie duñ jël sanction ndax sanction ku ko jël danga nga am loo bëgg a faj waaye teewul autorité malienne yi aussi war nañu waxtaan ak CEDEAO ba toog jubóo ci ay kaddu parce que euh, def nañ coup d'état defaat coup d'état ba pare def transition wu bëgg def transition juróom-benn at loolu aussi yéenul maanaam xel mënu ko nangu. Mhm. parce que réew mu nekk dafa war a tegu ci élection yu am nit falu ñu bàyyi ko mu gérer réew mi boo amee opposant ñu jàkkaarloo ak moom ko mënee da baatu par léegi loolu mooy stabilité réew mooy stabilité sous région bi. mais tey jii bu dee tamit euh, CEDEAO bu jëlee euh, décision ba pare dëkk yi nga xam ne ñoo ci bokk ñoo ciy gën a loru euh, ndax ci jotul mu daal di xoolaat li nga xam ne moom mooy décision yi. waaw ñàkkul CEDEAO dina jëlaat ay décision parce que. ñi ngi ñi ngi waxtaan sax tey jii sax foog naa ne ñi ngi war a waxtaan alors kon mbir mi problème mu sous région bi la maanaam gox bi la te gox bi d' abord ñi njëkk mooy juróom-ñetti réew yu bokk UEMOA waaye ak ñu nekk ci fukki fukki réew ak juróom yi nga xam ne yore CEDEAO mesure yooyu jël nag mais c' est normal pourquoi parce que réew mu nekk euh, élection moo fa war a dox ba nit falu gérer réew mi boo liggéey keneen ñëw waaye nag lii indi solution d' abord waxtaan la mais am na ñaari atu yoo xam ne ni ñaari eh, eh, carte maîtresse yoo xam ne mënees na ci sukkandiku na solution de Dambalaye mm-hmm. d' abord Algérie bokkul CEDEAO mais pare na pour jouer li ñuy wax bons offices pour que ñaari kuréel yi toog muy réew muy autorité malienne yi ak CEDEAO mais aussi carte Sénégal te Sénégal da ci war a jouer rôle bu am important muy euh, d' abord moo njëkk am problème ci frontière bi ci wàllu économie mais président de la République du Sénégal mooy léegi président union union africaine. union africaine. donc naka fi mu yor na carte en main pour jéem a dox ci xaraleem ak ci relation internationale ak ci diplomatie pour euh, nit ñi toog waxtaan parce que. bu waxtaan amul jubóo du am guerre mondiale yi amoon sax ci waxtaan a ko mujj arrêté. Mhm. kon lii yaakaar naa ne bala yàgg waxtaan yi mënul ñàkk te bu amee euh, te yaakaar naa sax Union africaine envoyé na fa benn benn délégation bu daje ak ñoom. Mhm. Euh, waaye nag euh, en tout cas transition wu six ans moom na xare naa accepté. sànq ñu ngi koy wax mbir mi laaw na Guinée Mali tey Burkina Faso ñu bëggoon a xam tamit ban axe la ci enjeu yi gën a bëri. enjeu économique. Mhm. ensuite diplomatie ak en euh, circulation des biens et des personnes. Ouais. parce que UEMOA dañoo bokk monnaie mais CEDEAO bañ koy créer ñi ko créer en tout cas li ñu jubloon mooy. réew yi nekk ay réew ku nekk am sa indépendance mais mu nekk benn réew bu mag. Mhm, loolu lañ jubloon pour waaw nga xam ne ku foo mën a dem d'ailleurs gis na sax am na carte a dem dem doo am benn difficulté man su tukki naa ba taay ci sous région bi doo am da nga am ay difficulté en général ci ci ci li ñuy arrêté nit ñi di leen laaj quelque fois nga joxe xaalis muy ñàkk bon c'est difficile waaye relation yi dafa war a ratax. Mhm. donc nag lii dina bokk ci li koy gàllankoor gis nga sanctions yi jël xaj na. biñ koy jël fekk na Guinée doon di am coup d'état mais aussitôt am na lu xew Burkina Faso. Mhm. mais loolu CEDEAO war naa fexe ba wanewaat dooleem wanewaat dangaram donte na am ouverture aussi pour négociation loolu ñu lool lañ yaakaar ci ñoom. te yaakaaru leen ne marché sous régional bi dina la di ko ñàkk yéen ñi opérateur économique yi ndax ñoo ngi waxtaan euh, ne Mauritanie ak Mali maanaam seen waxtaan sori na te boo mayul dinañ léegi contourner Sénégal. gis nga solution boobu solution la mais mën naa am du solution bi gën. ñun dañuy ñun parce que am na frontière ak Mauritanie waaye du caagi ni bu fa jaar ndax dina yombe comme ni daan jaar Sénégal loolu beneen point la am na ñu mën a euh, frontière euh, am nañ frontière ak Guinée am na lu mën ñëw ci port Conakry jaar foofu dem mais est-ce que daana yombe ni daana yombe te bu loolu su amee bu fekkee cher na dana gën metti aussi ci population bi solution bi ma yaakaar mooy li wax sànq mooy ñu jouer carte Algérie pour négociation am mais aussi Macky Sall jël bëri chaque jour waaye aussi décision sous régionale bi la ci ànd ndax moom kilifa ci CEDEAO kilifa la ci UEMOA donc ay peeram wala ñoom siqal na ay naataangoom jël décision mu ciy contre donte dana métti moom waaye aussi bu ngeen fàttalikoo question yu njëkk yee fexoon nañ bu ubbi Euh, bàyyi am yenn marchandise yi jaar comme fi noonu produit pharmaceutique duñ ko téye mais aussi denrée alimentaire de première nécessité aussi duñ ko téye. boobu ba léegi ñoo ngi gis ne manifestation de soutien ñoo ngi koy amal Sénégal ay organisation yu bëri yéen euh, bokk ngeen ci sax euh, amal manifestation ngir jàppale Mali ci situation gi muy dund ndax jàpp ngeen ne li ni mel mën naa am benn impact ci njeexitalu dossier bi. man invité woon nañ ma ci conférence de bi ci turu mouvement bi may jiite mu tudd USC Union des forces citoyennes. Mm-hmm. waaye nag comme amoon na enjeu économique wax ci turu UNACOISL wane ne ci affaire économie ala kulli alin réew yi koy yëg ñaar réew yi koy donc opérative économie ñu koy yëg te ñun ni ma ko a sànq suñu membre yi bëri dañu dem ci foire yi am fii nii maintenant mobilisation bi su amee mobilisation mbooloo la su takkoo dana am message mm-hmm. surtout dana am discours bu ñu fay tenir mm-hmm. discours yi mën nañ ba ñëw bokk ndax enjeu yi wute waaye ñun li ñu intéressé ñun mooy wàllu économie ak impact économique yi am te loolu message boobu dañ ko jàllale te aussi su amee autorité nekk sous région bi ak opinion internationale ak aussi ñi mu concerne directement muy Mali ak Sénégal en premier chef balaa ñu wax ci sous région bi ñoom message bi dana jàll te dana am lu mu sensibiliser dana am mu ci lu mu ci lu mu ci lu mu jur ci wàllu effet il faut mu am. waxtaanee jeexaleek tamit euh, li nga xam ne moom mooy relance progressive activité économique yi gannaaw mbas euh, mënuñoo wax sax ne gannaaw parce que mu ngi fi ba léegi waaye ba mbas mi amee léegi tey fu ngeen ci toll. waaw mois de mars bii la mbas bi di am ñaari at. alors euh, certes ñi laal bant parce que mu ngi woon ginnaaw ndànk-ndànk ndax melul ni mu meloon. Eh, fukki fukki weer ak ñaar ci ginnaaw wala fukki weer ak juróom-ñett maanaam at ak genn wàll mm. ci ginnaaw mais ñi am yaakaar waaye nag état bi bu yàgg la waxoon ci programme de relance économique mm-hmm. mais ñun sentiruñ ko maanaam relance bi théorie rek waaye sentiruñ ko te am na lu état war a def ngir loolu maanaam wala boog bu fekkee état mi ngi def yeex na lool lool lool mooy lan am na lu ah, ah, waaye am na luñ ci remarqué loo xam ne danoo nañ ko jamono jamono am nañ ci deux cent milliards yoo xam ligne de crédit la woon dañ ko waroon teg pour lebal ko ñi ñi am ay difficultés yu bëri bëri ñi am entreprise pour ñu relancer l'économie mais dama lay expliquer ne boobaa léegi benn ku bokk ci économie informelle ku ci am financement amul entreprise yu mag yëpp ñoo mëq lépp yóbbu ko ta ba mu jëree ba mu jëree wax wax naa ko ci kanam président de la république loolu mm-hmm. jam ñaajo la woon mm-hmm. yu bëri ñu koy fàttaliku mm-hmm. ay opérateur économique ngeen am na fi ay chantier yu bëri euh, dama ko fàtte sànq ay chantier yu bëri yu fi nekk euh, maanaam ay marché yi nga xam ne euh, capital waroon nañ ko ci séddale donc secteur privé bu nekk ci même réew ndax da ngeen ciy gis seen bopp souvent waaw souvent nag am na yoo xam ne ay appel d'offre la appel d'offre nag euh, buñ ko marché mi ngi mel ne boutique buñ ubbi rek daal ne ku bëgg a jë jënd na ñëw jënd nga indi ak li nga am léegi nag condition yi méttéo na trop ba ñu bëri daanañ ci soumissionné du ñu respecté waaye am naa information comme quoi ARMP wane na ne am na sax ay allègements yu ñu def ñi nga am yaakaar nag parce que état bi euh, maanaam année budgétaire mi ngi doon tàmbali mois de janvier ren mbir mi egg cinq mille milliards cinq mille milliards man am naa information que ne trois mille milliards ay marché public la loolu nag ñii ngi nekk économie informelle ñi ngi leen di ñaan ñu formaliser te nekk en règle ak institution de prévoyance sociale et tout ça ak aussi banque yi pour ñu soumissionner bokk ci waaye nag ba yii weesu daal am na ñu ci daan gis seen bopp mais bari na ñu ci gis ñu ci gisuloon seen bopp xëy na nag évolution dana am. Mhm, sëñ bi Alla Dia ñu lay jaajëfal bu baax a baax. jërëjëf ñu yendoo jàmm.